الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى الله وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا bokki jullit yi bokki taaliba yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Serigne Saliou di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal yi mu naal ngir liggéeyal maamam wuy juram suñ boroom tëb ko kattan bu mu ko eggalee te saa yu gersoo gis nu di siyaare bu baax bokki taalibe yi di leen ndokkeelaat ci bis bi nga xam ni ci la nu ne mooy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar da sëriñ bi waxoon ni képp koo xam ni sama mbég sa mbég la saa yu agseetee nag ma ci santale yàlla waxoon ni itam li dale ci ginaar ba ci gëléem lu ci waay man na ko ci def cant gi it làmboo ñett muy sant ak bernde ak jaamu yàlla sant nag dafa bari ay xeet waaye ñi nga xam ne ñooy war a def waxtaan wi xam ne dinañ ñu ci indil ay tuuti ay leeral su ko defee ni ngeen ko xamee defoon nañ ko daaw lañ ko tàmbali woon mooy guddig màggal ñu toog ginnaaw bu ñu yendoo màggal bëccëg bi guddi gi itam ñu fas yéenee wut ab yóbbal boo xam ne dana nu uh, jariñ ci sunug dund ñu man di ko jariñoo ba keroog ñuy dajawaat wala ñu koy jariñoo sunu giirug dund ba tax na Cheikh Mouhamadul Mourtada tànnoon gaa yu baax yi ci sama wet di ay gaa ñu tedd defe naa mbooloo mi ñu ngi leen di bëgg a xàmmee ni ñu koy waxee ci ci ci sama càmmoñ di sëñ maam Cheikh Fall di doom ci sëñ Mortala Fall di euh, sëñ Daam Fall mu sëñ Mortala mu maam Cheikh way juróomu jigéen itam di soxna Xawa Buso sëñ euh, bintu Cheikh sëriñ Mouhamadou Buso Jeng ñu xam ko ñu gën koo xam ci sëñ Mouhamadou Sa Falilu kon moom defe naa mbooloo mi ñu bëri ñu ngi koy bëgg a xàmmee ki ci sama ndeyjoor itam di Cheikh Mouhamadul Bachir fay moom it di borom xam-xam di jàmbaar ñoom ñaar itam féete sëriñ bi fu am solo muy jàng ak jàngale sëñ maam Cheikh mi ci sama wet moom moo ki nga xam ni moo yoral sëriñ bi daara yi di ko saytul njàng mi feggoo ceeg sëñ Mouhamadul Bachir daaw it ñëwoon ñu indil leen ay thèmes ngir waxtaan ak yéen ci thème bi nga xam ne defoon nañ ko ci yoonu géej gi tukkib géej gi te ñu baree bari jariñoo woon ci jariñ loo xam ne ba léegi ñu ngi koy jariñoo ba tax na ren ñu tànn temu euh, njàngum njàngale maam ay xamle ci téere bi ñuy wax masalikul jinaan masaalikul jinaan di téere boo xam ne sëriñ bi moo ko defoon def ko ci tasawuf muy téere boo xam ne baywut dara am na ci xissa boo xam ne sëriñ saalihu mbàkke dafa ñëwoon xel xelkom ñëw ubbi téere bi bi mu ko xoolee daane cey masaalik de fu waay làqatu rek mu loqati la ndax sëriñ bi lim ci wax lépp ci euh, xam-xamu zahir ak xam-xamu baatin àndaloon ay magam ci daara yi sëriñ Saliou lañ yaroo moom mii waaye juróom jébbal ko sëriñ Saliou maak moom nag yàlla boole ñu ci anam yu baree bari ndax man it bi ma xàmmee kër sëriñ Saliou laa xàmmee ndax ba ma xàmmee gud la ma sama waajur joxoon sëriñ Saliou ma yaroo ca kër ga ba mata dal jàng mu jox ma sëriñ Sohaybu ma jànge fa alxuraan jànge fa lu bari ci xam-xam kon sëriñ Basiru mi maak moom yàlla dañoo boole ñu bokk sëriñ Saaliw yàlla boole waat ñu it ñu bokkoon benn bërëb bu doon sàkkoo xam mooy fële ca Égypte ca yàlla boole ñu fa ñu nekkoon fa nekkin wu rafet waaye bi ñu noppee gis sëriñ Saaliw ci su ci Zahir yàlla boole ñu ñun ñaar ñëpp ñu jox ko ci Cheikh Mouhamadul Mourtada muy sunu wasila ñu ànd ak moom topp ci gannaawam di déglu ay ndigalam di ko liggéeyal tey sax ko sëriñ Basiru mii kon noonu lañu yàlla boole muy lu yaatu bi mu sàkkoo xam-xam nag ba ñëw ci toolu lislaam bi ci liggéeyal sëriñ bi rek ci la nekk ndax mu ngi yare di jàngale tey ku ne xam na ne jumaa jooju ñuy wax Masaalikul jiinaan di ndamul sëriñ tuuba fan yi ñu ubbi ko moom mi bokk na ci boroom xam-xam ya Serigne bi tànn ngir ñu fay war a taxawoo saytu lépp lu war a jëm ci wàllu xam-xam rawatina ci bayaanaat yi ñu fay def ci àjjuma ji ci njëkk julli gi bokk na ci ñi Serigne bi tànn ñu war ko di ko di fa def kon nag ngir am guñ am ci moom yaakaar ak taalibe gu nekk ci moom ak xam-xam bu rafet. moo tax ñu tànn ko waaye nag muy taalibe sëriñ Mourtada sëriñ bi doyloo ko lool di ko e, taxawloo fu bari ñu ànd ko ci lépp loo xam ne rek day gën a tax lépp gën a dëppoo ni ko sëriñ bi bëggee thème bi mu war a waxtaane nag mooy ay jàngat ci téere boobu ñuy wax masaalikul jinaan téere boobu ñuy wax masaalikul jinaan téere boobu day téere boo xam ne nii sëriñ Touba daf cee dajale loo xam ne nii bu ko nit ñi xamoon dund ko dañuy wax ne jafe-jafe yi àdduna day dañ kenn du amati jafe-jafe ndax duma dugg sax ci waxtaan wi dëgg waaye naa ko dana dana gën a leera bu ci duggee ndax ku ne xam ne ne li diine dafa nekk ñetti ñetti xaaj diine day nekk li ñuy wax lislaam ak imaan ak ihsaan Seydina Omar ibnu nee na dañoo mos a toog ci yonente bi sallallahu alayhi nes tuuti benn waay ñëw nuyoo koo xam ne dafa sol yére yu weex tàll te bim nuyoo kenn xamu ko ci ñun te gisuñu ci moom màndargam ku sonn nee na mu nuyoo ñëw ba fi yonent bi toog mu toog sës ak moom ne ko dama lay laaj lan mooy al islaamu lislaam mooy lan yonente bi tontu ko ne ko lislaam mooy ngay taxawal julli di natt asaga aj màkka boo ko manee woor weeru koor tudd ñaari baati seede yi mu ne ko wax nga dëgg ñetteelu laaj bi mu laaj ñaareel bi mu laaj ko lan mooy al imaanu mu ne ko ngëm mooy lan mu ne ko mooy nga gëm ne yàlla kenn la gëm ne malaayika yi am nañ gëm téere yi yàlla wàcce gëm ne yowmal xiyaam luy ñëw la gëm dogalu yàlla lu yàlla dogal mu neex la moo xam loola lu naqari la wala lu neex la ñetteelu laaj bi mu laaj ko ne ko lan mooy al ihsaanu ihsaan mu ne ko mooy nga seetal sa xol ba booy jaamu yàlla mu mel ne yaa ngi jàkkaarlook moom ihsaan boobu nag la Sëriñ Tuubaa di leeral ci masaalikul jinaan kon dafa mel ne masaalikul jinaan boo jëlee diine muy imaan islaam ihsaan Sëriñ Tuubaa dafa taalif ci ñett yépp taalif na ci ay téere yoo xam ne ci wàllu imaan la jëm imaan rek lay wax lu mel ne mawaahibul quddus nga xam ne génnul imaan taalif na ay téere yoo xam ne day laal ci wàllu lislaam ak wàllu imaan maanaam lu mel ne tasawudu sixaar nga xam ne am na imaan am na lislaam ci biir lu mel ne tasawudu zubbaan tasawudu zubbaan nga xam ne moom it day am imaan am lislaam ci biir téere bii ñuy wax masaalikul jinaan nag ihsaan la mooy lenn moo ci mooy ihsaan te mooy lan mooy tasawuf tasawuf nag buñ ko waxee mooy xol bu sell ba tax na kon xol bu sellee boroom xol boobu mooy yeyoo may yàlla mooy ki nga xam ne nii sunu boroom dana ko defal jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira loolu lañu sëriñ bi di jàngal ci Masaalikul gi kon mu mel ne lu mat a jàngat la lu mat a xam la bu ci sëriñ Basiiru duggee lu ci mat a xam lu ci mat a leeral des na ko leeral ngir ñu def ko ab yóbbal waaye mu nekk lu ñu dund bu jàngatee Masaalikul Jinaan boobu tam dana waxit comportement murid saadix ab taalib bi nan la war a mel taalib bi dëgg-dëgg nan la war a mel daa saalix yàlla yàggal ko fii te wéral ko te sàmm ko aar moom moo jullit ñi di ko ci jagleen nuyoo ko ndokkeel di leen ndokkeel di ndokkeel sunu bopp ak njabootu jullit ñépp ci màggal gi nga xam ne mooy cant gi nga xam ne moom lañ yendoo fanaane ko biig yendoo ko tey jii bu nuyoo yu weesoo nag eh, ñu dugg ci tem bi ñu waxtaane léegi te sëñ maam Cheikh Fall ak eh, sëñ Jiili Njaay ku ci ne am lu mu ci indi loo xam ne lu am solo la sëñ maam Cheikh noonu mu ko waxee yàlla moo ñu boole ci kër sëriñ Saaliw boole ñu ba ñu nekkee bitim réew boole ñu bi ñu ñëwaatee fii ci keppaaru sëriñ Murtada Saalih bu ñu waxee nag ay njàngalin ci masaalikul jinaan ñu ngi ci jublu téere Serigne Touba Mbàkke bu siiw boobu ñuy wax kitaabu masaalikul jinaan mooy téere boobu nga xam ne boo ko doon firi ci wolof danga naan mooy yoon yi jëm ci àjjana yi yoon yi jëm ci àjjana yi daa mel ni bu ñu doon wax ci pédagogie rek loolu dafa firi lu bare bare bare bare ay yoon yu jëm ci àjjana ya loolu tur wi dafa ànd ak lu ñuy tuddee contexte historique téere bi dafa am contexte historique bu dee ñi ko mën a xam ci làkku arab mooy dafa am asiyaqu taarix ci wàllu taarix téere bi dafa am lu koy taarixal li koy taarixal mooy waxtu wi nga xam ne cheikhuna cheikh ahmad bamba mi ngi taalif téere boobu dafa tasante ak jamono joo xam ne jëmmi lislaam fii ci sowu jant rawatina fii ñu nekkoon ci Sénégal tur wi moo ëppoon jëf gi maanaam nit ñi dañu daan jëfandikoo turu jullit waaye lu bari ci liñ daan def dafa rax ceeb dogu baree baree bari loolu contexte historique pour ngeen xam téere bi ci yan eh, jamono la ko Sëriñ Tuubaa bind ndax bu ñu xoolee waxuma la sëñ Tuubaa waaye ñi yàlla dénk dara ci xel ay bindkat bala ñoo mën a bind dañuy am lu ñuy tuddee benn source d'inspiration day am lu jeq lu jeqi seen xalaat li jeqi sa xalaat nag faw mu doon tawat nga doog cee xalaat nuñ koy faje kon société bi ci jamono yooyu dafa feebar dafa dafa wéradi Sëriñ Tuubaa bind Masaalikul Jinaan mu doon comprimé walla garab gi nga xam ne suñ ko joxee société bi société bi wér loolu mooy li ñuy tuddee contexte historique ci téere bi ndax boobu ci jamono yooyu dafa fekk réer bari fi nit ñu bari réer lool donte ñu ngi tuddoo lislaam ñu bari fonkatuñ alxuraan ñu bari fonkatuñ sunna ñu bari lii ñuy tudde tasawuf déggin wañ ko déggoon baaxut ndax dañ ci daan parparloo ak a xeex a ko xuloo kenn ku ci nekk di di wan ne moroomam maa la gën maa la ëpp leen nangam ñu ko ñu koy ñu koy gengante ci seen biir loolu tamit dafa bokk ci contexte historique bi day day tax su ma ñëwee si téere bi ngeen xam téere bi yan jamono la ñëw day day gën a yomb déggin bi day yomb ci yéen jamono ju bi sëñ bii bind téere bi dafa fekk nit ñi bidaa moo ëpp ci li ñuy jëfandikoo ci biir diine xeetu njabar yi nga xam ne moo amoon ci jamono jooju tam dañ koo raxoon ci diine ci benn baat li ñuy tudde ak ceddo moo raxoon diine ji ba mujj sax mu mel ni ceddo gi mooy diine nga xam ne diine ji aw tur la rekk waaye ci tur wi la yem jamono nag bu melee nii saa su ne nit ñi ci seen bopp ñoom ñooy soxlawoo koo xam ne moo leen di delloo ci ngëm nit ñi ñoo koy soxla xam nga nit yàlla ni mu ko mooñee dafa am lu yëngutu ci biiram saa yu yëngoo day jëm ci baax su ko seytaane raxul àdduna raxu ko bànneex raxu ko day jëm ci baax jamono yii nag nit ñi nga xam ne seen seen xol set na jeng nañ jëm ci baax waaye kon faaw ñu gis ku leen mën a gindi jàpp seen loxo yóbbu leen fi ñu bëgg faaw ñu gis ci jamono jii koo xam ne day taxaw taxawaayu yeesal diine ci ñoom loolu lañuy ñuy tuddee mujaddid loolu lañuy ñuy tuddee mujaddid mooy koo xam ne day ñëw joyanti nit ñi indiwaat leen ci siraatal mustaqim bu ko defee doomu aada yi aadama yi daal di mën a dellu ci lislaam ju wér a ñaareelu poñ ci contexte bi mooy téere bi bi ko sëñ bi sëñ bi bind dafa fekk am na ñu fi tuddoo woon ay ay sëriñ ci jamono jooju ndax ci tasawuf lañu ñu ne ñi ko tuddoo woon nag ñu ci bari dañ daan xëccoo li ñuy tuddee si tasawu alkamaal wal wilaaya maa la gën a mat maa la ëpp wilaaya li ma man mënoo ko walla walla yu mel noonu lañ daan xëccoo ñu ci bari ci ñoom dañoo amoon yeneen jikko waaye dañ daan sol yérey nit ku baax bu ñu la bu ñu ñëwee ci yow nga defee ne am nañ wàccuwaay woowa waaye boo jëflanteek ñoom ci biir xam ne demewuñ noonu loolu lañuy tuddee yatashabahuun bisaalihiin al ulama dañ daan nuru nurulu nit ñu baax ñi te yegguñu fa ñenn ci ñoom ci jamono jooju dañ daan laqatoo li ñuy tudde az zuhd dañ daan wane ne dañoo dëddu yàlla dañoo dëddu àdduna maa ngi maa ngi jéggalu dañoo dëddu àdduna te dëdduwuñu àdduna àdduna rek liñ bëgg am ci ñoo xam ne yeggoon nañ ci noggutu fere yi taalibe yi nga xam ne ñooy ñëw ci ñoom eh, eh, nga xam ne eh, sëriñ bi ki woote woo woon loola ci jamono jooju am na ci ñoo xam ne xàmmeewuñ diggante farata ak sunna waaye dañ daan noggutu ñi nga xam ne dañ leen a tane dox seen diggante ak sunu boroom te amuñu benn cër ci xam-xam loolu moo sànkoon nit ñu bari ba nga xam ne kenn xamatul fu kenn jëm mu bokk ci li xewoon jamono jooju tam Euh, phénomène bu ñuy tuddee jihaad bi sëñ bi bind téere bi li ko jiitu tuuti amoon na phénomène bu ñuy tuddee jihaad xam nga jihaad dafa nekk ponk bu am solo ci lislaam waaye nag dafa am ay charte yu bari yoo xam ne bu shart yu matul euh, du jàppandi kenn du ko mën a def waaye ba ñu gëstoo li nekk ci ginnaaw euh, jihaad yooya xewoon ci jamono amoon na ci yoo xam ne këf alali nit ñi la am ci yoo xam ne sàkku wàccuwaay ci biir nit ñi la waaye doonu toon dëgg-dëgg jihaad beneen ci li xewoon ci jamono jooju ma mujje ko mooy li ñuy tudde phénomène aj màkk aj màkk dafa xewoon ci façon boo xam ne nit ñi dañ ak juróom benn fukk ak ñett sëriñ bi def ko ci ñaar fukki ñaar fukki néeg ak ñaar loolu ma doon wax bunt bi ak i néegam mooy li ñuy tudde ñaar fukki néeg ak ñaar néeg bu ci ne day day jàngale lu jëm ci suñu borom mu ubbee ko tuuti li ñuy tuddee introduction mooy bismillahi rahmaani rahim daal di ci tagg yàlla sant ko ji julli ci si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo nekk ci introduction Masaalikul Jinaan ci tàmbali bi la ca topp mu daal def dégg nga muqaddima muqaddima bi mooy ak jiital li sëñ bi jiital rek daanaka jël na li ñuy tuddee ñetteelu xaaju téere bi maanaam masaalikul jinaan suñ ko xaajoon ñetti xaaj muqaddimatul kitaab li sëñ bi jiital ci téere bi jël na ci juróom benn téeméeri ba ak juróom ñett ak benn juróom benn fukk ak benn mooy xaaj bu njëkku téere bi te loolu ca muqaddima ba la ko def ci muqaddima bi ci tamhiid bi sëriñ bi ma ngi fay leeral lan mooy ngëneelu xam-xam bi ñuy woowee tasawuf ak tasawuf moom ban relation la am ak xam-xam bi ñuy tudde fiq xam nga léegi dañuy wax lislaam mooy julleeg woor ak yi ci aju yooyu xam-xam bi ñuy tudde fiq moo koy lijjanti boo jàngee téereb laxdar yi wala nga jàng jaw jawharu nafis walla yooyu da ci ciy daal di mën a dem waaye nag ndax tuddoo fiq rek doy na am déet ak tuddoo tasawuf rek doy na am déet am ñoom ñaar dañ leen a war a boole loolu la sëñ bi wax foofa ñu ne daal li nga xam ne moom lañ sàkku mooy nit ki bu ne man suufi laa suuf yi nag eh, ci waxin mooy man nitu nit ku bokk ci tariqa laa am naa ab sëriñ gëm naa ne am na ko mën a dox sama diggante ak sama borom kooku la ñuy suuf yi nga na boo nekkee suufi da ngay gëm loola ba noppi soo ko gëmee itam loolee aju ci lislaam ci julleeg woor ak natt azaka ak aj màkka bu ko sàgganee nanga ko fonk lool boo ko fonkee ñoom ñaar dégg nga ci ngay doog a doon ki ñu sàkku yow yaa yaay ki ñuy wut waaye boo nee man daal fiq rek doy na ndaxte affaire u euh, euh, tasawuf yooyu man euh, daal di am loo wax